souriante comme d'habitude <laughs> merci beaucoup euh, kontaan torop ci dalal bi nga ma dalal. di kontaan tout le temps bu ma jàkkaarloo ak yow. daal man itam mbégte laa ciy àndal sama jigéen la. Euh, doon wayli wayli woo xam ni wax dëgg yàlla kenn naataable tu ko fii ci Sénégal waaye xam nga dama ko sonal dafa am way woo xamante ni daan daw café avec man chaque jour su ma ko gisee dama naan ko balaa nga maa nuyu may ma ko s'il te plaît may ma ko rek nga doog ñu doog a ñëw ci titre bi ak yi jot a xew yépp ci Dim na, di dim na, dim na. I have gone, I have Dim na, di dim na, dim na. I won't be back again, I have gone, yeah. Eh waay, yéen a ngi fàttali dem na <laughs> naa <laughs> ki sëñ Bamba waaye daa difficile nag waaye ci boutique lay génn waaye waaye doy waar euh, ma am mbekk bu baax a baax dalalaat la fii ci Parc des Princes joor euh, ku ne xam na ni euh, way li way li la daa mën a way lool macha allah ndaxte ñëpp nangul nañ ko ko joor xëy sa nga génne titre boo xamante ni mi ngi bës moom itam gis nañ sa retour wax dëgg yàlla la nga ca bëggoon itam am nga ko ci succès ndax gis nañu titre bi toll ci ay millions et des million de vie tey nga indilaat nu Tuma Tuma ça dit waaw surtout mooy soo ma amee. waaw. Euh, loolu xale jigéen ñi rek lay jox occasion ñu dëggal seen bopp. Hmm. wax ni ay jàmbaar lañ daan te surtout góor soo ma amee ta vie tu la validé hmm. maanaam euh, validé nga ko boo ma amul nag tu es passé à côté. si tu m'as pas à côté. Ah, beneen style la parce que c'est tout à fait lépp français la. mu nekk leen lu bees. Euh, mais nag musique amul frontière daal. Ah. ñun géwël yi ba tey mën nañoo war a way ci français loolu dara nekku ci. dëgg la <laughs> en tout cas way la woo xamante ni euh, laay yokkat ba foofu la foofu la laay foofu baax na euh, am na cas ndaxte gis naa ni à la fin gis naa le le mec il il pleurait pourquoi muy jooy ku góor ki ci clip bi. xam naa peut-être dafa passé à côté rek. xam nga des oh. fois balaa ngaa ximmiliku soo ko xam li nga oh, perte. balaa ngaa xam di xaw laa rey. looloo ko dal. waaw looloo ko dal. mu doon une chanson d'amour encore euh, dañuy gis euh, Dior day woy ci lu bari ci mbëggeel joor elle est amoureuse xanaa. waaw loolu kay kenn waxatu ko. amoureuse <laughs> beneen affaire la ñuy wax. <laughs> wala joor day bañ ñaareel wala wujj wala ñetteel looy bañ. noo bañ ma wujj. Ah. xale yi sama suñu rakk yi il faut ñu bàyyi may leen opportunité ñu ñëw. déet déet non xam nga am xam nga euh, ñi ma fi invité sax ñoom ñii am na ñu ciy def ci yooyu noonu xam nga léegi bongo maa di yin jël. Mhm. awa xaw ma lan nu ko waxatee awa xaw ma saw. <laughs> Oh, noonu la ñu koy defee ñaar am na daal nu koy waxee. ay néegu aaw boo fa duggee. waaw néegu aaw boo fa duggee keneen ki ni néegu ñaareel boo fa duggee xam nga yooyu baaxul. xam nga yooyu baaxul aaw ak ñaareel moom vraiment ñetteel yee ngi nii mer nañu moo tax Boubacar foofu mu génneel waaye ñetteel yeeg ñeenteel yi ñoom neen bokk nu bokkatuñ ci jeu bi. Ah, aaw yeeg ñaareel la te yooyu doxul jabar daal jabar dong la.